ndaamaatu hôpital la boo xamante ni ñu ko def hôpital ci atum 2012 waaw bi ko defee hôpital ba léegi nag am na ay jéego yu bari yoo xamante ni euh, def na ko te lu yàgg na lool mu yàgg di taxawee li nga xamante ni mooy màggal maanaam màggal bi teru na euh, laay day di samp ay kuréel kuréel yoo xamante ni euh, mat na juróom benni kuréel yi nga xamante ni ñoom ñëpp li leen tënk mooy wàccaayu màggal waaw kuréel googu nag li ci ëpp solo mooy li nga xamante ni moom mooy kuréelu bi nga xamante ni moo ëmb way fajkat yi muy médical bi nga xamante ni moom mooy wàllu faj bi mooy féetewoo wàllu faj mi ci biir hôpital bi kuréel googu nag amaan na yeneen xeetu kuréel ndax wax màggal wax ni dina am ay gan yoo xamante ni dañuy ñëw ci dëkk bi waaw ah, gan yooyu nag mooy ñi nga xamante gan yooyu dina ci am ñoo xam ne dañuy feebar ñëw hôpital ñu war leen a taxaw taxawaay bu mucc ayib ci biir gan yooyu am na ñoo xamante ne dañuy ñëw suñuy naataangoo yoo xam ne dañuy ñëw ngir jàppale leen kon kuréel yooyu boo koy xool mooy kuréel yi nga xamante ne ñoo ñoo wër kuréelu médecin yeeg ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu paj bi moom mooy commission ni comité kuréel yi nga xamante ne ñoo yor wàllu dëkkuwaay yi dalal gan yi ak ñu yor wàllu hygiène bi mooy wàllu set bi ak cell bi ak ñu yor wàllu euh, cet bi ak cell gi ci nga xamante ni moo nekk ci biir hôpital bi ak ñu yor wàllu communication waaw ak ñu yor wàllu lekk bi waaw ci wàllu kuréelu ñi nga xamante ni moom moo yor wàllum paj ni nga xamante ni lañu Euh, waajalee bis bi mooy ci màggal bi dafay am ñetti fan yoo xamante ni euh, ñi nga xamante ni dañuy ñëw di faju si ñi nga xam ne way feebar yi duñ ci fay dara muy ñetti fanu màggal yi mooy buñ nee suba la màggal ak bisu màggal bi ak buñ nee buñ màggalee ko ci suba ga ñetti fan yooyu maanaam kenn du ci fay dara buñ ci fay dara mooy ci wàllum hospitalisation ak wàllu analyse ak wàllu li nga xamante ni moom mooy njëndum garab yi nga xamante ni am na ci biir hôpital bi loolu ak analyse yeeg rajo yi ñu war a def ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw duñ ci dara ni ko wàccalee waajalee nag mooy am na ay bërëb yoo xamante ni dañ ko mu bu ci demee ni am na bërëb boo xamante ni ñoo yor wàllu consultat li tubaab di wax consultation foraine consultation foraine suñ ko mënee leeral mooy ñi nga xamante ne dañuy ñëw ci hôpital bi te nekkuñu ay urgence maanaam du ay malade yoo xamante ne ñu sonn lañ am na barab yoo xam ne dañ ko waajal ngir ñoom bu ñu ñëwee fa la ñuy dem barab yooyu nag ñu ko xayma ci juróom-ñaar juróom-ñaari barab yoo xamante ni ay docteur ñoo fa nekk ngir faj ñi nga xamante ni dañ fiy ñëw ngir am yitte boo xamante ni nekkul urgence boo xamante ni dafay laaj taxaw ci saa si barab yooyu dinañ ubbi du ko dalee huit heures juróom ñett waxtu ci suba ba juróom benn waxtu ci ngoon bis bu jot ci biir hôpital bi